waaw sama tànku tay tànku collé la euh, vraiment donc euh, ci suma xarit Aliou Diop euh, yalla dogal ñu bokk fu ñuy liggéeyee donc on est dans le même service au ministère de la pêche voilà Badou vraiment nek un collègue je dirais même un frère pour moi vraiment nit ku bax, nit ku yaru nit ku am yek ci doomu adama. donc lolu mo waral suma téway tey vraiment ci bësam bi jàpp si ban ban image nga am bon image bi ma jàpp bon mooy nit koo xam ne man mun naa référence laa ko laa ko jàppee un jeune comme lui donc dama naan kooku royuwaay la parce que jeune boo xam ne am na fulla am na fayda. Euh, en plus vraiment donc mun naa ne yëpp qualité boo xamante ne bii dana tax jeune ñu mën roy ci moom. Euh, donc mun naa ne mi ngi ci mi ngi ci Badou Gueye vraiment nit koo xamante ne bi daal nit ku baax la nit koo xamante ne bi vraiment référence la je je dirais même. seen doom bi nag man prière ngay defal ci seen doom bi. voilà suñu doom bi di ko ñaanal yàlla guddal fanam donc yàlla def ko magul islam yàggal fi aussi ay way

voilà ba mën a lim donc mu nekk des valeurs yoo xamante ne bi yu baax la ci doomu aadama donc xale bi donc ni nga koy ñaanal suñu borom guddal fanam def ko magul islam dem ba vraiment nii ñu teewe nii ci tuddoom dem ba teew nii vraiment di ko takkal jabar donc ak i ngénte ay sëtu bado et ainsi de suite ak yooyu daal voilà